mbokk yi jërë ngeen jëf ñu ngi leen nuyu rafetlu ànd bi ak télévision Futurs Médias xibaar yi ci gàttal ñu tàmbale ko wàllu politique am na nag ay ñoo xamante daal ñi ngi bokkoon ci PDS nekkoon fay militant ñoom ñoo jóge ci boobee parti daal démissionné ne nan dem nañ fekki Madické Niamine sàkku ci moom sax mu daal di sos ab partem ndax jàpp nañ daal parti démocratique sénégalais dafa war ki nga xamante ni mooy seen kilifa ci wàllu politique di maître Madické Niang ñu déglu ci Moustapha moom moo yoroon seen kàddu dem bi ni jàkkaarloog parce que nga ne atte yi ba pare élection yi passé façon coxor bu nekk ak diabolisation def nañ ko suñu candidat mais ñu continuer ba élection yi passé ba léegi soxor la ngi commencé poste bi nga xam Abdoulaye Wade moo ko waxoon mu téye ko parce que bu wuloon mu démissionné ci poste député assemblée nationale ñu gis temps yi secrétaire général national bi Omar Sarr bind président assemblée jaaree nañ ko ci président groupe parlementaire bi pour nangu poste boobu ñu ne soxor nag fii la mën a yem. ay compagnons maître Abdoulaye Wade ñoo toog ci biir taabal nekk ay responsable yoo xam ni dañoo am légitime lu ñuy naan tubaab di naan légitimité historique ci biir parti fu nekk jaar nañu façon kii bu nekk dal ci biir parti bi ñu ànd ak parti bëgg parti bi sax moo tax ñu soutenir candidature maître Madické Niang tey gisuñu suñu bopp ci parti bi. loolu moo tax tey ñun ànd nañu ñun ñëpp war gannaaw parti démocratique sénégalais wàllu njàng ak njàngale ñuy dellusiwaat ci li nga xamante ni daanaka lëmb ne ñaari daara fii ci ndakaaru muy collège Sacré Cœur ak bu yàlla sureen ñoom nag dafa am juróom-ñett ci ay ndongo daara yu fay jàngee yoo xamante ni police daf leen a teg loxo jàpp ni daal dañ doon jëfandikoo xeetu yàmbaak yu ni mel di ko muxi loolu nag tax na rek kilifa yi jiite ñaari dàmm ecole yooyu ñoom weddi nañ ko wante police dëggal na lu ni mel Aminata Mbaari Sow Amadou ci bërëb yi la ñu teg loxo xale yi nga xam ni dañoo doon jëfandikoo chanvre indien lii nag jàkkaarloo cour Sacré Cœur ci biir école boobule directeur bi bind na ab feuille ngir yi li ñuy tuumaal yenn ci ay élèves am. dañu woo police ñu laajte leen est-ce que ñu ñu jàpp am na ay élèves yu Sacré Cœur donc ñoom ñoo ñu ne vraiment amul benn élève de cour Sacré Cœur peut-être comme. lu xew sorewul ci école bi peut-être am na ñu fa ni bon comme sorewul école bi bon waa sacré bokk nañ si maa ngi bind benn démenti bu may yónni euh, journaux yi yoo xam ni ñoom ñoo ko publier. ñu tollu ci juróomi ñetti élèves yi ñu teg loxo ak ñaari nit yu leen doon jox chanvre indien boobule beneen école bu ñu tudd ci mbir moomu lee di groupe scolaire yàlla sureen ñoom it weddi nañu sudee sax nanguwuñ ko wax ci suñu micro. école yi am na ñu bëre ñuy euh, doxantu foofu peut-être di proposer ay euh, yëf yoo xam ni jaarul yoon entre autres comme drogue bi moo tax euh, ren. en réunion ñu ne vraiment suñu munee laajte dimbal police pour que police mun ñu dimbale vraiment ñu euh, lu nekk ci euh, côté école yi loolu lu am lu lu jaar yoon. bu ñu sukkandikoo ci waa police ñoom nee nañu élèves yi ñu teg loxo ñi nga xam ni. bokk na ci ñenn ñi doon jàngee groupe scolaire yàlla suren ak ñu nekkoon cours Sacré Cœur waaye ñu teg ci ne bi ñu demee ca sûreté urbaine ci ay yenn enquêtes yu ñu def jot nañu bàyyi ñett eh, ci élèves yooyu lee ñeneen ñi des nag daal dinañ leen jébbal parquet ngir enquête bi way justice mën a def. ñi moom ay ndongo daara lan jànge ca daara ju naan maam Yelli Badiane ca Pikine foofa nag lan fa ne nemmeeku rek mooy ndox mu bon ma moom moo daal lëmbee eh, daara ja ba ndongo yi mën nañoo jàng loolu da kon ñu bank seen yoxoon ne daal ñaari fan a ngi ne duñ jàngat boo sàggalu ñu dàbbali ko feek waa LONASE yi nga xamante ni kon ñoom ñooy yëngatu ci wàllu woowu indiwuñ ci ay saafara eh, seeni i wayjur ànd ceeg ñoom ñu déglu leen ci micro Salif Sow ak Asmalik Diop ñoo ngi décrété grève léegi ñoo ngi toog ñun jànguñ c'est pas parce que dañoo bañ jàng wala loolu non non mais suñu cause la ñuy plaider avec problème mu foos yi ça fait plus de deux ans ñoo ngi si ñoo ngi si te affaire yi ñoo commencé pénaliser vraiment ak tamit suñu chantier bi tamit bokk na si revendication bi jàkka ji ak arène nationale bi ak école bi ñoo c'est le même projet mais tamit léegi école bi ñu ngi koy seetaan te ji ak arène national bi pare na ba gars dimbal autorité yi ndax ñoom war ñu ñoo seetaan ñi nekk si condition yi nii ndax déwén ñoom dañuy ne déwén xale yi ñoo ñoo war a yor réew mi que ñoom dañuy toog di naan ay les jeunes l'avenir du pays patati patata mais du yoon waruñu ñëw seetaan ñi am tolof tolof yii nii. ñu ngi woote un appel d'abord au ministre de l'environnement au DG de la LONASE et surtout au maire de la ville mooy parce que moo compétence am mooy mu toppatoo lycée yi jamono yi nag lakk yi bëri ci yenn ci marché loolu tax rek ñu xool ci marché boo xamante daal moom royukaay la ci wàllu kaaraange ndax rek lépp loo xamante ni ay branchement clandestin la amaloon ko fa Senelec moom moo leen defal ay compteur yoo xamante ni commerçant bu nekk ak sa cantine euh, am na li naan rek euh, compteur su ko defee ñu mën a moytu ay court circuit yoo xamante ni mën naa jafal marché yi ba indi fa musiba mooy marché bu Liberté 6 extension loolu commerçant yi ñoo ko sàkk woon ñoom it daal di koy rafetlu Cheikh Diop Pape ne bay marché liberté 6 extension file lépp lu soxal wàllu branchement électrique yi daal nañ koy amal ci yoon ñi nga xam ne ñoom ñoo di commerçant yi nag daal dinañuy respecté bépp norme boo xamante nii rek dafa jëm seen wàllu kaaraange ñi le di xam le ne xel mu dal la ñu amee ci liggéey ci bile marché ñun nag yàlla dogal na ñu am ñoo ñun la njëkk a installé defe naa ci Sénégal installation bii nga xam ni tey moom lañ am nga xam ni lépp loo xamante ni dafa nekk wàllu sécurité ci wàllu courant dañ ko cee dañ ko cee fàggu préparer ko ci préparation bi mooy euh, ñun ñi nga xam ne ñun ñooy euh, utiliser courant bi yow doo am amoo benn accès ci wàllu fa nga xam ni fa la danger bi nag fii macha allah bon yàgg nañ fi def nañ fi ay at yu bëree bëri mais gis nañ ni fii macha allah yàlla musal nañu musuñu am problème boobu. jaaykat yi li nag bëgguñu benn yoon li nga xam ne moom moo di branchement anarchique comme niñ ko seetloo ci yeneen i marché. fi installation yi moom wax dëgg yàlla waa Senelec ñëw nañ fi saytu fi defar ko ba mu baax d'habitude luy indi lakk yooyu nag mooy euh, branchement clandestin yi nit ñi di def di kii xëccalanteeg yooyu noonu. yooyu mooy indi problème yu bëree bëri. Euh, installation yi dañ ko def de telle sorte que c'est bien fait. ñoom ñi le ba tey di sàkku ci ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di seen ay ñooñu commerçant ñu xool ci bile marché ngir daal di moyu lépp lu soxal wàllu lakk yi. fii waa marché bi dañoo jël seen matuwaay dañoo jël seen matuwaay pour que aussi branchement clandestin aussi gars yi bañ koo def xam nga boo gis fii nii cantine yi bëri na trop mais cantine boo gis am na courant tout est bien installé waa mairie. n'est-ce pas euh, jël nañ euh, ñoo xeex pour que franchement ak euh, waa yi liggéey fii ci marché yi pour que Euh, mu bañ am risque d'incendie. lépp lu soxal wàllu kaaraange ci marché yi nag lii lee nekk ab jafe-jafe boo xamante ni jaaykat yi ñu ngi koy jànkonteel doomu réew mi la nag di sàkku ci ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di autorité yi ñu daal di ciy indi ay saafara. jërëjëf Cheikh Diop mbokk ñu ngi leen di gërëm ci ànd beeg télévision Futurs Médias fii la ñu yam ak yéen kon ci xibaar yi seen émission yow leen bàyyi leen ak Baye Cheikh Mboye ak yéen euh, ci émission bi.